salaamaaleykum sénégalais yi yéen jàmbaar yi ci terrain bi kenn amul seen fay loolu la ca di yéen yéenay soldats yi yéenay des vrais voilà sa démocratie bul nangu ko ko salfaañe Macky Sall yóbbu nag jawwatam Maroc waaw rawale na nag di pesé max leen nag Badio Camara ngeen dégg Badio Camara c'est le plus grand corrompu de l'histoire du Sénégal Macky Sall Badio Camara ban ko war a tëj yàgg na wax naa leen ko waxati leen ko Nafi Ngom Keïta ba mu nee daf koy def déclaration nag a def ci Macky Sall la daw Macky Sall dàq Nafi Ngom Keïta président nag pour protéger Badio Camara Badio Camara est-ce que xam ngeen euh, recours yi ñu ko jox su ko neexoon suba mu claqué doo am suba mu rejeté ko suba mais moo ko tey parce que jeu Macky Sall lay joué bàyyil Sénégalais deux trois jours ñu xaw a xaaba xaaba bal bàyyi parce que am na un mois la ko loo may suba bu ko neexoon. atte gars yi préparé seen i élection mais moo koy def exprès Badio Camara fait partie des plus grands connards et corrompus max leen ko ngeen dégg ko te Macky Sall moo ko corrompre moom waaw Macky pare na jeu mook Amadou Ba joué nañu seen jeu seen film toogaat nañ seen conseil des ministres nee na ko booy très bien rôle bi joué nga ko bu baax Amadou Ba ni ni ko way grand noonu la rek amul problème ñu toogaat nekkaat seen seen nguur gis ngeen dil bi ñun ñun ñu jàppe ñu ay golo ngeen bal ma ji wax ji quoi doomeeraam yi jàppee ñu ñun ay golo naa leen wax nag démb ba ngeen naan ay dañu war a daje ñi policiers yi barricade nañu xaw ma fan naa leen man je suis contre le regroupement bu leen di dajaloo benn place naa da ngeen di téye micro di wax homme de neuf ans maa ngi ak ñoom homme de tenue balaa moo am force nekk en bloc li ngeen def démb noonu la cinquante cent personnes dispersé leen te li ngeen def démb bu leen ko bàyyi tey te naa leen wax nag ñenn ñoo xamante ni sont les plus grands complices max leen ko te ñooñu buñ ci duggee rek Macky Sall reculer si que vous voulez est-ce que xam ngeen syndicat des transporteurs bu ñu bu ñu décrété woon grève nationale ni benn oto du daw deux jours Macky Sall reculer bu reculer wul dina teg benn deal boo xam ne xam nga lu Macky Sall nga di wax baajo Camara rejeté affaire bi nil ah opposants yi li ngeen ma ñaanoon def naa ko assemblée voté na ko conseil constitutionnel d'accord ko fa la Macky Sall di mujj syndicat des ñoo mën a régler problème bi. lan moo tax un deux trois ngeen baare eh, yoon yi saa yu ngeen ne baare noonu route bi oto yi dematuñu dëkk bi taxaw na ngeen ciy teg syndicat des transporteurs ngeen yi waxal bu ñu yàpp wala oto bu taw ngeen taal ko ñoom rek buñ ci duggee décrété grève nationale tant que Macky Sall reculul oto du daw billaahi wallahi taalaahi Sénégal ni tekk te Macky Sall dina reculer nii wala ci ne moomul Sénégal ndeyam moomu ko bàyyam moomu ko max leen nag ci om de tenue yi gars yi bu leen jéem a dóor benn homme de tenue sax wala dara bu ngeen jekkoo sa bàyyi leen ñu dem def leen si rek li ngeen def mais képp kuy nervi sama kanam a ngi nii fees to fees ñu may gis képp kuy nervi ku jéem a dugg ci gém bi bu ngeen ko jàppee taal leen ko rey leen ko filmer leen ko torture bi def leen ko lu raw xaru tabaski ndax yàlla nee na ku la bëgg a rey rey ko Macky sàll gënul leen ndey ak bàyyi jël njabootam rawale ko Maroc yéen ngeen di def seen marche pacifique fatt yoon ak taxaw reyu leen kenn am nit jóge fee naan dafay jël seen bakkan ana jigéen ñi où sont les femmes démb teewuñu benn jigéen di kam maltraité monde bi yëpp di ci teg seen bët ah ouais ana ñu doon défendre xale jigéen yi doon taxawaalu ñi ñu leen di défendre ana ngeen jigéen ñi ana ngeen gis nga lii def seen moroomu jigéen ngeen di toog ah toog naan wii moo <laughs> allahu akbar eh gars yi bu leen abandonné man préféré naa woor une semaine daal di suuf sama ngiru dund que chaque jour may accepter ñu may jox añ rek du ma ndékki du ma reer accepté naa nekk chômeur une semaine après may commencé di liggéey à vie gars yi xeex bi amul abandon ne tant que Macky Sall bàyyul Badio Camara nag yow bu la Macky noonu cas d'urgence te suba nga génnee délibéré ni Macky Sall am dëgg comme Macky Sall amul dëgg ngay téye di ray temps di ànd ak Macky Sall gars yi bu leen abandonné boo Bocar Thiam li tax coupé wul internet xam na ko parce que dafa am ñu ko nee mu réglé Macky Sall nag ñun population bi ñoo koy naan mu taxaw gars yi bu leen abandonné centimètre bu ngeen abandonné rek c'est fini on a trahi notre peuple ñi ne ci prison bi danañ fa dee xalaat leen président Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Fadilou Keïta ak ña fa nekk ñëpp tëdd ci ñun rek lañu yaakaar. ñoom ñëpp a ngi toog di ñu ñaanal ñaan yu metti naan billaay jàmbar yàlla bu leen yàlla def xelu reculer seen bopp saa yu ñu tëddee ñoom loolu reyee ne seen bopp yàlla bu leen yàlla def xelu reculer seen bopp ndax bu ngeen reculer mooy Macky Sall rey na leen ñoom ñëpp est-ce qu'on va se laisser faire gars yi bu ñu bàyyi bu ñu bàyyi bu ñu bàyyi bu ñu bàyyi on va pas trahir notre peuple sama collègue algérien ak marocain dañ ma ni i président bi njabootam ak Maroc xam nga lu ma ko marocain bi wax algérien bi nee na ma faal da nga bëgg ñun ñoo xeexal leen seen dëkk non non ñun Algérie ba ñuy xeex di ko leen de ñun ñoo xeex defar suñu dëkk Tunisie ñoom ñoo xeexal seen bopp ñun nag dañuy toog un deux trois te kuy wax dialogue ni leen ko demal jële ci sa ndey sa baay ak sa doom ak say soxna ngeen toog seen kër ngeen toog fa dialogue seen biir yéen li jënd seen kiiwu kër bu fi journaliste bu fi toog plateau naan leen dialogue awal leen fu gën bon ni leen ko demal nga dialogue ak sa ndey ak sa baay dialoguñu douze ans de dialogue Macky Sall di def lu ko neex Macky Sall Karim Wade mën na tax muy reporter ay élection loolu bu leen ko waxee di ngeen ko gëm Macky Sall ku mu bëgg a rey rey la sànni ca nit CEDEAO punir na ko ku nekk punir na lijjantiw la ngeen naan ay diwa tax ak diw moo def li Macky Sall dafa baax baax boobu moo gën a yées lu yàlla sax gars yi bu leen abandonné tey lundi syndicat des transporteurs bu ngeen waxul ak ñoom ni leen oto bu ñu lakk nag seen oto bu ñu lakk ñoom seen responsabilité la ñoom buñ ciy dugg coole di jeex billaahi wallaahi taalaa yi xam naa état bu baax ñu naan leen neuf ans maa ngi ci wasalaam yi